da nga officier ci gouvernement boo xam ne li dañ koy reproché ne euh, marché yi la commande publique euh, dafa tijji plus euh, buntu yi c'est Chine c'est Turquie c'est c'est c'est c'est France c'est le Maroc secteur privé bi jooy secteur privé sénégalais bi jooy nañu ko ba sonn ñoom indi nañu la loi sur la préférence nationale voté nañu une loi sur le partenariat public privé mais le secteur privé sénégalais est laissé en rade ñoom nag bu ñu toogee am na lu ñuy assumer ñoom nee nañu l'État a fait beaucoup d'efforts l'État a même euh, fait obtenir des prises de participation au secteur privé mais parfois secteur privé bi ñoom ñoo dul góorgóorlu yow mi nekkoon ci biir nekkoon ci yor ay ministère da ngay partager constat bi c'est le secteur privé sénégalais moom moo góor góorgóorluwul wala c'est l'État ki ne pas assez pro pro protectionniste euh, et qui ne fait pas beaucoup de marketing pour son secteur privé. waaw xam nga euh, maanaam euh, sa laaj bi am na solo parce que dafa am loo xam ne il faut ñu ñu ñu ñu leeral ko xam nga dafa am projet yoo xam ne. dafa nekk les projets les projets Exim c'est les projets Exim banque Exim Bank Turquie Exim banque Chine Exim banque euh, euh, yeneen réew muy lan mooy man état du Sénégal dama bëgg a tabax autoroute waaye awma xaalis sama budget ma wut ay accord international ak benn réew boo xam ne moo may lebal xaalis mais condition bi may lebal mooy entreprise am moo koy. exécuté loolu ci signature bu la c'est dès le départ loolu mooy les projets exib loolu la nekk Ila Touba ak yeneen projet également yenn projet également ak Diamniadio <coughs> d'ailleurs donc effectivement boo xoolee projet yooyu c'est des entreprises étrangères ñoo koy réaliser mais c'est le contrat initial maanaam man Sénégal tey su ma amoon alal lu bëri bëgg relancer mon mon secteur privé mën a dem bitim réew lebal ab réew xaalis mais samay entreprise ñoo koy réaliser donc ça c'est les projets existants donc kooku pour nga reprocher justement euh, état loolu de day jafe parce que l'état n'avait pas les moyens de réaliser le projet maintenant li nga wax euh, fi mu amee importance mooy fii ñu toll maanaam bu crise amee yu mel nii état dafa am ñaari instruments yoo xam ne mën na kaa jëfandikoo pour relancer ce secteur privé bi ci njëkk mooy son budget budget mën na kaa jëfandikoo pour lancer ay programme d'investissement yu mag a mag a mag par exemple man sama programme dama ne bu ñu waa Sénégal wóolu dañuy lancer le chemin de fer qui quitte Dakar pour aller à Kidira pourquoi parce que alal bu nekk Kidira dans le Sénégal oriental war nañu kaa mën a transporter indi ko Sénégal mais également le transport de marchandises bi jógee ko chaque matin dañu ñëw port de Dakar muy ñu def port à Tamba pour que justement éviter d'abord les accidents. Il y a un projet de port sec à Tamba. justement, projet de port, euh, non, mais éviter les accidents, mais éviter la détérioration des routes. Donc, investissement yu mel noonu su ko occasion la justement pour que son secteur privé yoo xam ne commencé spécialisé wu pour que ñu mën a jël ces projets là ces projets d'envergure donc état mën na kaa sur l'investissement état aussi mën na kaa sur l'instrument de financement parce que l secteur privé souvent le au financement d'accès aux ressources financières souvent tey boo nekkee une entreprise privée sénégalaise une PME parfois même pour nga am garantie marché public c'est compliqué pour nga am une garantie bancaire c'est compliqué et c'est là justement état mën na am un un bras financier parce que comme la monnaie est suprarégionale donc mënoo ko mënoo utiliser la monnaie comme <laughs> pour certains grands pays comme les États-Unis où euh, l'instrument monétaire est un instrument de, de relance économique ñun on a la BCEAO mais ñun jàpp ne état du Sénégal dafa relancer une grande banque nationale d'investissement pour l'industrie et pour le secteur privé boo xam ne dina lebal secteur privé à des conditions extrêmement attractives lebal également les petites entreprises comme les entreprises dirigées par les femmes dans la transformation agroalimentaire les par les jeunes également dans le secteur des arts et de la culture et cette banque là euh, pour man ces euh, ressources war nañ kaa mën a partir des ressources gazières et pétrolières nga xam ne fa lañ koy loger parce que avec les ressources gazières et pétrolières ñuy dans tes comptes war nga mën a dem sur le marché sous-régional international mobiliser des fonds indi pour le secteur privé mais à des conditions yoo xam ne état moo la naan conditions yoo xam ni euh, relancer le secteur privé et su boobaa les secteurs prioritaires comme l'agriculture avec notre souveraineté alimentaire comme l'industrie ce qu'on a dit sur l'or sur le fer comme la pharmacie parce que nous importons plus de 200 milliards de produits à banque que c'est des secteurs prioritaires et demander au secteur wut ay partenaires technologiques ñu jàppale pour ñu mën a relancer donc cet instrument là je pense que loolu aujourd'hui mooy lu bees li état war a mën a def un état participatif état mën na ko def à travers des instruments comme le FONSIS par exemple qui peut être un instrument boo xam ne utile boo xam ne état da koy jox gànnaay pour que cette banque là nekk la banque qui va participer à des projets industriels portés par le privé national donc oui non justement jéem nañ doon def quelques prises de participation dans des projets ay Parenterous ak euh, gis nga gis nga l'immeuble là euh, la la tour des des des mais depuis quelque temps boo seetloo euh, Francis n'a plus les moyens de sa de sa de sa politique dama joxe exemple Francis mais dama leen sànq une fois que cette banque d'investissement créée dama ne cette banque là ces ressources vont venir des ressources gazières pétrolières bi ñu fay loger mais cette banque va lever Et cette banque, justement, sera l'instrument que va utiliser, par exemple, le Fonds pour entrer dans le capital de certaines entreprises à haut potentiel. Et c'est comme ça, parce que réew yëpp faut pas se faut pas se leurrer <laughs> soxna may mën a réew yëpp boo demee Amérique comment ils ont fait pour lancer seen seen grande entreprise à un moment donné c'est l'État américain qui les a soutenus donc État à moment donné État mooy jàppale son secteur privé. mais mais boo doon def un choix d'endettement di nga continuer le choix de ces projets j'ai des projets je pense que euh, au regard de leur coût maanaam ni ñu toll euh, bu ñu négocier de bons projets exim war mën a nekk parce que boo jëlee des projets sur 30 ans sur 50 ans par exemple boo jëlee le chemin de fer de fer voilà chemin de fer Dakar Tamba par exemple qui fait près de 1000 milliards de projets tey boo laajee waa Sénégal oriental est-ce que le chemin de fer d'accord ngeen ci mais ils sont tous d'accord mais est a génne 1000 ñu wut lever des fonds euh, classiques mais soit chercher justement des fonds avec des partenariats et, je pense que quand c'est bien étudié c'est des projets yoo xam ne am nañu njëriñ parce que dañu war a daa am yoo xam ne dañu ko war a accélérer euh, soxna Maïmouna lu mel ni les routes lu mel ni les chemins de fer lu mel ni certaines infrastructures d'aménagement par exemple agricole par exemple l'aménagement agricole pour man il faut bu ñu war a aménager tey cent mille ba deux cent mille hectares mais c'est des moyens colossaux et je pense que il faut suñu def ko avec des entreprises yoo xam ne qui en ont la capacité financière et, et moi je suis pas du tout fermé à ces projets il faut seulement ñu euh, étudier leen maanaam euh, négocier pour que les intérêts du Sénégal soient bien préservés mais les gros projets d'infrastructure oui il faut les financer et généralement on n'a pas le budget pour les financer directement mais Ila Touba 456 milliards mhm. état du Sénégal amul woon des mécanismes yu mën a organiser état Sénégal dugal comme ni mu ko defee ci autoroute à bi organiser des privés sénégalais ñu ñu ñu ñu ñu lever des fonds euh, tabax ko le, le privé sénégalais mënuñu porter bon, ce moi, type de projet tout le, détail sûrement sûrement en tout cas man euh, pas tout le détail de ce projet wax dëgg yàlla j'ai pas le, le détail du montage euh, parce que ça relève de, de, de notre ministère que je n'ai jamais géré donc mais dama jàpp ne projet mel noonu bu amee il faut le faire de manière transparente quels sont les schémas possibles bu ñu ne woon dañuy le chemin de fer Dakar Kidira man j'ouvrirai un, un débat en disant mais quelles sont les propositions calme en proposition de construction du chemin de fer Dakar Kidira et les experts les les conseillers du gouvernement du Sénégal vont regarder le meilleur projet le meilleur taux la meilleure rentabilité et puis on va le choisir donc moi euh, dàquma le secteur privé. yow yow yaa privé en tout cas bokk dugal nga sa loxo bu baax sur le projet des aéroports euh, secondaires et régionaux. pourquoi vous avez opté de travailler avec les Tchèques pourquoi vous n'avez pas associé le waaw là c'est vrai que ça a commencé avant may ñëw quand même ministère mais c'est des projets aussi de même format c'est les projets financés par euh, la coopération tchèque donc et par les entreprises tchèques mais justement c'est ça qu'on vous reproche c'est-à-dire même bu ne c'est projet exigu dans la formulation du, du, du contrat comme ils ont ils l'ont fait avec le le le le, le TER on a fait travailler des entreprises sénégalaises. Mm dans la formulation du contrat war nañu euh, teg les de d'un d'un d'un d'un d'un partenariat euh, public euh, public privé wala ñu ñu exiger ne parti partie des travaux tel aspect des travaux secteur privé national bi moom moo ko moom moo mais. Euh, et je prends un projet que tu connais très bien mais da ngeen jël yëpp jox ko le les le les Tchèques là il y a pas un seul acteur privé sénégalais bu nekk ci bu nekk ci biir faut pas dire y a pas un seul acteur privé peut-être on pourrait mënoon nañ ko augmenter le nombre d'acteurs privés c'est vrai mais quand y a des entreprises sénégalaises ci liggéey mais gis nga yooyu yëpp ay eh, dama jàpp ni ay ay amélioration la mais le principe le principe d'avoir des aéroports c'est un bon principe le principe pour réaliser donc c'est vrai euh, quand même faut pas que ma attribuer wu la paternité de de de choses qui m'ont parce que falaa ko fekk au ministère. ça a démarré voilà ça ça euh, je suis d'accord sur le principe vraiment de lancer des projets EXIM parce que li ñu war a réaliser en termes d'infrastructure c'est tel que euh, dama jàpp ne bu ñu ko bëggee développer sur la base de notre budget duñ ci génn donc je pense c'est le principe maintenant est-ce que mën nañu ko améliorer justement